restera à jamais et à jamais dans les annales du football sénégalais pour avoir été le premier buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde. waaw xam nga en fait je ne sais pas si les gens ont bien compris le message euh, du chef de l'État parce que am na lu nga xam ne moom la ñu tuddee le musée euh, de l'international le musée des sportifs loolu le président wax ne dinañ ko ériger à Diamniadio man dafa bokk ci li nga xam ne bu ngeen dégloo suma interview ci fan yëpp dama wax ne tey war nañu am un musée de l'international un musée de l'international mooy lan mooy barab bu nga xam ne dañu fay màndargaal ñi nga xam ne def nañu ay jaloore ngir seen réew je pense que tey euh, Pape Bouba def na lu nga xam ne génération yi di ñëw suñu duggee ci musée boobu dinañu xam ne Pape Bouba Diop est le premier buteur de l'histoire du Sénégal en coupe du monde de football il est le meilleur buteur Sénégal en phase finale de coupe du monde de football je pense que loolu yëpp dañ ko war a retenir mu nekk ku nga xamante ni nii France mi ñu coloniser woon keroog Pape Bouba moo ñu décoloniser France mi ñu amoon complexe ci moom keroog Pape Bouba moo ñu décomplexé devant la France et quelle France la France vice championne du monde la France avec à à son attaque euh, trois buteurs à, qui à eux seuls marqué quatre-vingt-dix en une saison mais Pape Bouba moom moo faj bu mu gàcce yooyu moo ñu tàggale ak njaam suñu diggante ak France moo tax tey honneur buñ ko rendre mérité na ko parce que c'est un soldat qui est tombé sur le champ de bataille et je pense que au Pape Bouba est au panthéon des immortels il est immortel c'est pas que deewul mais il est immortel parce que bàyyi na ci ginnaawam lu histoire dootul fàtte l'histoire retiendra toujours que Pape Bouba moo fi def lii donc je pense que tey euh, à 42 ans rek la am mais li mu dund tey li nga xam ne def na ko ci àddunaam nit dund na cent ans te def ko li mu am nit dund na lu ko ëpp te amuloo ko kon war nañu dellu sant yàlla ñaan yàlla yàlla teeru ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi aussi yàlla euh, def ci teg ci loxo euh, il n'a qu'un seul rêve qu'il n'a pas réalisé c'est de gagner la Coupe d'Afrique pour le Sénégal loolu rek la deful mais leneen lu Sénégal di def def na ko il a bourlingué partout Pape Bouba carrière am dafa nekk une carrière atypique Ndefane la jógee dem Jaraaf junior ñu déclassé ko mu dem senior football fa deux ans dem dem Suisse dem Suisse jóge fa ñëw lance toj Lens jóge fa dem coupe du monde toj coupe du monde jóge coupe du monde dem Fulham toj ko il est il a fait 74 matchs euh, à à Fulham il est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe la et pourtant c'était un milieu de terrain donc ça veut dire que nit la bu nga xamante ni nii gabareem ak ni mu toll ak qualité yi mu am ci joueur raar na nga nekk 1 mètre 95 am kilo yi mu amoon macha allah ba pare moom sa yaram ni mu ko moomee woon des athlètes comme ça le Sénégal en manque. des milliers de terrains comme ça le Sénégal en manque encore est-ce que dinañ ko amaat c'est un gros point d'interrogation en tout cas honneur à Bouba repose en paix la nation te reconnaissante et je pense qu'aujourd'hui c'est un repos mérité. mais monsieur Thiandoum tey euh, ni nga ko waxee groupe boobu noonu équipe boobu noonu en 2002 yàgg nañ bëggal Sénégal te tout le temps fu ñu dem sagal nañ tey bi nga leen gisaatee naataangoom yëpp daje ñoom Tony ñëw ki nga xamante ni mooy Henri Camara nekk fa El Hadj Diouf Ferdinand Coly ban yëg-yëg ah, maa ngi toogoon ci seen biir. parce que c'est une génération bu nga xam ne man sama nekk journaliste sportif dafa taseeg seen épopée donc ñu miin ma lool ma miin leen lool ànd ak ñoom campagne bu nekk ànd ak ñoom fu nekk ci Afrique euh, mais bi ma leen gisee ñoom ñëpp boo xoolee seen xar kanam da ngay xam ne euh, naqar am na si tiis am na ci mais aussi da ngay delloowaat sa xel ci yàlla xam ne yàlla mayewul day abale ñoom doole du du wéy kàttan du wéy mën-mën du wéy am am du wéy bakkan du wéy tey ñoom ñu nga xam ne ñoo doon bégal Sénégal tey kenn mënul ci daw cent mètres yu mat loolu nga xam ne yàlla la moom abale woon nanguwaat naka mais aussi euh, li ma gën a marqué mooy tey ñoog Pape Bouba ñoo doon ànd di daw ñoog Pape Bouba ñoo doon ànd di bégal Sénégal tey ñu toog di teeru néewu Pape Bouba y a rien de plus émouvant que sax moo tax dañu jooy ba deseetuñu rangoñ loolu day wone rek ne euh, Pape Bouba dafa nekkoon ak ñoom nekkin bu rafet Euh, ku ci nekk ci ñoom boo waxee sa rangoñ dal ci sa dënn j'ai voulu faire parler Ferdinand munul wax euh, ma bëgg a wax loo Diomaye si mënul wax Ousmane Ndoye mel ni xale bu tuuti di jooy comme bébé mënul wax donc loolu day wane ni rek Pape Bouba am na fu mu eggoon ci ñoom Henri moom kenn waxaale wu ko parce que Henri c'est le jumeau de Pape Bouba ñoom ñoo defandoo seen carrière junior te tey Pape Bouba ñëwam Suisse euh, Henri daf ci jouer parce que Henri moo ko jiitu à Neuchâtel c'est Henri qui a l'un des joueurs à dire que woo leen Pape Bouba bu ngeen ko oowee di ngeen am milieu terrain bu baax donc tey Henry li mu yëg ci naqar kenn mënu la ko wax te moom tamit bi mu déggantee ak Pape Bouba deux jour lañ ci te xaw ma 48 heures ñu ne ko Pape gaañu na mais gëmu ko dafa envoyé message jabaru euh, ci message u Pape Bouba jabaram ni ko effectivement Pape Bouba gaañu na donc tu vois que loolu yëpp dafa métti mu mel ni Pape Bouba da doon xaar Henry woo ko mu tàggoo ak moom soog a àdduna donc euh, c'est une génération bu nga xam ne am nañu trop lu leen métti tey mais bon c'est ça la vie kullu nafsin saayixatil mawti li yóbbu yonent bi yóbbu Serigne Touba Khadim Rasoul yóbbu Seydi Haj Malick yóbbu mag ñu tedd ñooñu fi nekkoon du fi bàyyi Bouba Diop du ma fi bàyyi du leen fi bàyyi yàlla na yéex mais yàlla na fekk ñu def jëf ju mag te je pense que Pape Bouba jëf ji mu jëf tey euh, war na tax ñëpp fier kenn waru ko jooy kenn waru ko jooy xam nga lu ñu war a def ñeeku ñaanal ko cat bañ ko jiitu si bàmmeel loolu rek lañ ko ameel mais vraiment euh, c'est c'est un guerrier qui est tombé yàlla na ko yàlla yërëm